Legal. comment l'a battu ah il l'a battu avec la manière de ndax li ko Diène bëggoon a def la ko Zarko def da koo tël dóor ko tànk daa koy bale mu dem da koo dóor tànk ba pare yokk ko xandaaloog moom action bu rëy la ko daanee Diène loolu da ko doon préparé mais bi ñu jàppantee ñoom ñaar ndengeeñ bi ko Zarko ndengeeñ moo tax Diène ak siwul Zarko da ko ndengeeñ moo tax mbagu Diène ak siwul moo tax loolu moo bloqué Diène Diène nag bi mu teggee tànkam di ubbil Zarko ci la Zarko toppee action daal di tonn tànk bi bale ko daal di wëlbati ko mom daan lako jël bu reuy lamb woné waat na bopam sar ko woné ni mom instant yi ah liñ ko doon waxal ak liñ ko doon ki yépp désuwee na pronostic yépp parce que retour gagnant la def Mour Anta da ko daan mu baye fi lamb je tukki juromi at ñew jël mbay guy gi freiné ko ñëwaat jël baye ma ñoon daan ko freiné à la face freiné jeen kayré kon instant yi mom mi ngi ci ascension bu baax wa duggu na si ñaabu ndaw xeyna nak nag bu démb doon tay mën na ko bañ jël parce que nga daan Diène Kairé jëlaat ñaabu ndaw lolu dellu ginaaw la waaye business la ba mu koy jël tamit xamul woon ni làmbam xëy na ni xamul woon ni lay demee ndax làmb liggéey la te ko toogatul di xaar kenn parce que ñi mu bokkal génération genn wàll gi bëri nañ di dem ñi ngay bëri ay millions yoo xam ni moom agagul foofu te moom li mu pertoon la bëgg a dabu moo tax muy tegale combat yi su tegalee combat yi da ci am ay ndam tamit yàlla da ko ci gën a ubbil ay bunt parce que victoire tegaloo mooy làmb waaw Modlo tamit li mu def moom lañ ko def rek parce que Modlo. bu mu yaakaar ne moom mën na humilier booy bi wala mën na ko teg xel wala mën na ko merloo dafa bëgg a merloo booy bi booy bi bàyyi lam daan def ñëw bëre ak fugg ak xaru mu jumloo ko sàcc ko loolu la bëgg a def booy bi lépp lu mu waxanteeg Modou Lo démb bu arbitre sifflé dina teg lële daal di bëre ci ci maayanu Modou Lo bu Modou tegee ataaya booy bi dina teg ataaya su tegee warga mu def warga bu defee naanaa mu def naanaa bu tëjee baraada bi tijji mu tëj tijji mën nañ bëre 30 minutes waaye bu ñu xëyee ne runkum ñoom ñaar buñ jëflantee ibba li ma la wax bind ko fii tee Modou Lo Boy Niang bu seen yaram laalante nga gis Modou Lo ci kaw te yàlla xam na ni wax naa ko ci site yu bari dinaa ko waxaat si yow mooy la premier sunu borom rek moo mën a wàcc ba max Boy Niang ne ko doo daan kattanu yàlla ak mbaaxu seex na boobi dina ko daan jël ba rëy fii dama ne la le premier Boy Niang dina ko daan jël ba rëy fii parce que seen sees sat sunu borom rek mën a wàcc ba max booy Niang ne ko doo daan Modou dina ko daan jël bu rëy fii Zarko daan du bett kenn mais comme bu jéem daanoon lamb ji xëccoo la mais Zarko koo li mu imposé te wolof dafa ne ni melu ni waxee ni mu jafe la mel boo xëree retour bi mu jëlee mbay guy gi la mu ko imposé jël bàyyi ma joon imposé jël aada face muy génération jéen presque yoxoo su ko boobu la jën waroon a xam ne bu juumee kii dina ko daan jën nag la mais bëre boo juumul doo daan dafa juum ci biir bëre bi non dañoo jàppante ci kaw mu dóor ko tànk wañ ko da ko saj da ko dóor tànk wañ ko non laaj naa ko sax dégg naa ko micro mu ne ma mbër gi dañ ko war a bëre mu ñu toog rek di xaar waaw loolu la ma moo lay wan ne ku ko jël na nga pare ah. félicitations grand manager. waaw. Ah, merci waay jërëjëf. lamb la rek lamb la rek lamb la rek. lamb la rek. billaahi lamb la rek. waaw Zarko ndaanaan la tey gars yi nanguwuñ ko xam. waaw Zarko mënul a daan. mënul bëre. daa mën a daan. sant ñaamu na awa sam bëgguñu ko. daa mën a daan ñaamu na awa sam bëgguñu ko. na a jàngi bëri ba ci kanam xale ko waaye. na loolu lan nga fi wax. non ah, mu delloo. non non mu delloo. non loolu luy dem lay doon combat bu neex lay doon. waaw. Ah, ah. mu ne bëgg na. nee mu na loolu nee na ci taxaw. jeex na yow suñu fils nga. tey daal gis nga neex. non bëri nañu amateurs yi kontaan nañu. waaw làmb nag moom. noonu lay demee ñi dañuy kontaan ñi ñiy mer sport moo tëddee noonu foog mu am ku gagné am ku nu gagné mais ñoom ñaar ñëpp dañuy defarwaat rek ñëw ci course bi waaw jërëjëf Iba Oui. Parce que la de catégorie par catégorie. Oui. Multiplie. Oui. Tey combat bi combat jéegi si la woon. Waaw. Bu daanoon bu daanoon la def coupe des la. Waaye dafa day am weesu boo xam ne. Il est très rusé. Il est très rusé. Rusé. Zarco oui. Il a la facilité. Oui. De tromper ses adversaires. Uh -huh. Il l'a prouvé parce que dans le avec la manière. avec la manière oui. Ah, mais Zarco Zarco souplesse bi muy bëree lan la loolu lu koy may mbër. xam nga sport boo gis c' est l' intelligence en mouvement. intelligence en mouvement. Ah, Tyson waxoon na ko wax na dëgg. wax na dëgg. Mara le grand marabout Zarco daan na jën kay rek. waaw maa ngi ziar maa ngi ziar. waaw. di la nuyu bu baax a baax. waaw bu ma fekkee ci li ma la wax rek laa lay wax. nee naa li gars yi yaakaar ak lii xew bokkul wallaahi daana buñ Zarko léegi moom booy yi parce que booy la ko ku ci ko ku ko ci doole ëppoo ko ñaan daa koo ko bëre doo daal ah mais Zarko am na combat moo ñaabu ndaw moo ñaabu ndaw am na combat lamb ji moo gën a daan sax moo ñaabu ndaw bii moo gën moo gën a yéeme moo ñaabu bi <laughs>